naa ni ñu dem euh, li nga xamante ni nag moom mooy euh, boobale caravane toujours ngeen wéy rek di nekk ànd rek ci li nga xamante ni moom mooy euh, Feeling Dakar dèjà ñu ngi waat fi nga xamante ni rek moom mooy Sandaga ngir rek wéy di ànd ak yéen dans l'autre côté lañ ko rek daal di duggee euh, bu ko defee euh, comme ni ngeen gisee rek ñu wéy euh, ànd ba tey ci li nga xam ne rek moom mooy boobale caravane di ànd ak yéen ci li nga xamante ni rek moom mooy soir du 22 mars 2024 comme ni ngeen gisee loolu nga ci li nga xam ne rek noonu Euh, Faye euh, voilà ñu ñu laajandi. cootu ndaam. saa ñun Diomaye Faye Sonko mooy Diomaye Diomaye mooy Sonko. Ah. ñun sëriñ ñun Diomaye kese la ñun ñoom lan moo leen lan moo lan ngeen jàpp ne Ousmane Sonko bu ko gagné mën na defat ba yéen ngeen ne si jàmm. loolu bari na. wan nañu Sonko bi su toogee wan nañu lépp. Sonko bi su toogee dafa réew mi. parce que alxuraan ngeen Sonko programme programme waaw Sonko bi ñu toogee Modou Modou Canada dañuy ñibbi si. Sonko bu mu mu def mu def Sonko mooy mage mage mooy Sonko rang muy Sonko kañal kañal. man euh, ban heure ban heure. waaw ah. ban heure ngeen bëgg a gagné. waaw yow huit heures lañ bëgg a gagné. xadi ndaw xadi rek. ñaata pour cent xadi wane quatre vingt neuf pour cent. quatre vingt neuf pour cent. waaw ah, muy rek ci li nga xamante ni euh, moom mooy euh, boobale euh, boobale caravane comme ni ngeen ko gisee du ñu xaarandi yaay booy. Eh, may ma nu ma nagoo ko maa ngi si de. yàlla na yàlla na ah? nga bëgg. ma ne damaa bëgg ngeen jàppale ma sama borom kër dafa gaañ. te damay waaw leen. ah. waaw Cheikh Bara waaw ma ne Cheikh lay ziar di la ñaanal gudd fan ak wér may leen ngeen téye mi dimbale leen ma ci lu ma ndogoo sama kër dafa gaañu damay ñëw fii di góorgóorlu rek lu ma ndogoo laay jërëjëf yaay booy euh, muy noonu euh, dégg ngeen euh, wax ñu ñu toppandi ba tey. ci suñu génne ceeb seer na dawlin seer na ñu ci kaso bi ñu ngi ñu sonal borom maami buur yi ma ne borom maami buur yi séeréer pire Sonkoy séeréer pire ah, yaay boobu lu mu wax. Euh, Sonko mooy euh, séeréer pire euh, Diomaye séeréer pire ba tey ñu ñu rek di àndandi ak yéen ci lu mel voilà gis ngeen ba bi nga xamante ni la Sénégalais am ci Cheikh Bara cofeel bi nga xamante ni la Sénégalais am ci Cheikh Bara boo ko Mara Mara Mara sëñ Mara ñaari moo leen bëgg ñaari moo ñaari moo. Eh, ñu xaar ah, ah, li ma xool ah, li la mokk xam naa li tax mokk. mais ñoo fi ñëw fi ñëw seet si leen Sandaga sëñ Mara Niass ñëw fi ñëw ñëw seet si leen. waaw di wax sénégalais yi bu ñu gisee lii ñu xam ne terrain bi président Ousmane Sonko moo waroon a ci def lii comme que téye nañ ko ñoom ñun ñoo ko koy defal sénégalais yëpp nañu pare ñu fal président Diomaye Faye ci kàddu Basiiru waaw ca lañ koy fale ci kàddu président Ousmane Sonko lañ koy fale waaye li gars yi di wax moom moo ci am fal benn am ñaar gars yi nañu fëkkës ñu xam ne président Ousmane Sonko du ñu wor te du ñu fen président Ousmane Sonko du wor du ñu waaye président Ousmane Sonko day jaay day jaay mbaax bay joxoñ jomaay wallaay dina xam ne jomaay dana ko fay ba wis ko loolooy wax ji jomaay dana fay président Ousmane Sonko ba wis ko jërë ngeen jëf voilà mu noonu euh, ñu ñëwaat ci sëñ Mara. dégg nga lu bon dina ko yaa ma mayoon 30 mille yi euh, moom ba tey ñu wéy àndaat ak yéen euh, dégg ngeen ñu ngi koy yëkkataat di ko dégg nga lu ñuy wax rek moom mooy Bassirou Diomaye Faye Bassirou Diomaye euh, Diakhar euh, Faye euh, ñu rek di ànd na yëpp tey Bassirou Diomaye Diakhar Faye noonu ngeen dem ngeen jëli carte yi incha allah mu ngeen taxale woon ci seen réew le 24 ñu xëpp dafa woote ndogu jubilé pour liggéey réew ndax ku ne xam na ne Sénégal depuis 1960 dañ koo tënk benn système nekk fi loolu jaaduwul ndax réew mi am nañu as am nañu or am nañu zircon am nañu pétrole am nañu jama am nañu lithium am nañu suuf am nañu ndox am nañu géej voilà donc euh, ñu fas yéene jël déclaration bi nga xam ne déclaration Cheikh Bara. maa ngi leen di nuyu maa leen di sant koor gi metti na mais gis naa ne génn ngeen tatagal ñu kon mënuñu leen a romb te yëkkatiwuñu ay kàddu nuyu leen di jox nuyoo président Ousmane Sonko. leen jox nuyoo Bassirou Diomaye Faye leen jox nuyoo coalition Diomaye président di leen wax élection yii di ñëw dañ di ñaan ngeen jëli seen carte te wate massivement ñu gagné ko premier tour parce que nag ñun partenaires yi suñ demee élection ak kenn deuxième tour mën nañ koo ndam li parce que nag ñooy Sénégal kon nag maa ngi leen di ñaan ngeen ngeen wate bu baax parce que nag Macky Sall dafa téye Ousmane Sonko téye Diomaye pour bëgg bàyyi Amadou Ba mu wër réew mi ndax sénégalais yi jënd leen su élection yaa wate loolu nag nañ ko lànk da koy nangu wala du ngeen ko kan ngeen àndal kan ngeen àndal kan ngeen àndal Sonko mooy Diomaye Sonko mooy Diomaye Sonko mooy Diomaye Sonko mooy Diomaye kon nag noonu la kontaan nañ ci yéen di wax fii ay liggéeykat rek ñoo fi nekk ñi fi taxaw ñëpp kenn dëkku fi liggéeykat yii état rek moom ngeen manqué gis na boo demee Paris ku nangoo xëy heure wàcc heure da ngay tekki par force parce que état bi moo leen ko jox Sénégal nag da ngay ñëw six heures du matin di wàcc vingt et une heures te doo amee doo ko mën a tënk loolu nag moo war a jeex kon nag teggi leen ci sàcc fi nekk te teg nit ñu dëgg muy Ousmane Sonko.